salaatu allazi fi kulli sayrin wa wa safar salaatu te ci loolu la ab a doone góor dëgg dëgg dëgg bi boppam ba ma ne dund yàlla ni mu ko bëgg a dundee te dara ko gàllankoor mu def ca loo xam ne nag doomu aadama su ca ko ci jë ci bëgg yoon saasam bëggeel goo xam ne kenn mësu ko bëggee noona bay wax ne li ëpp li li gën a sax ci xol muy ay koom wala ak njaboot mbaa yu ni mel lépp mu jote ko yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bay wax ne sax sama deret ak samay waa kër ak samay doom lépp jote naa leen yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dami wa ahli wa awlaadi alfidaau lahu abdan xadiman lahu mutkane li sanada mbëggeel googi nag mu firndeel ko ci anam yu bari wax gi mu ko waxal boppam doy na ci waa da caa wax yeneen waxin yoo xam ne moo lay war ne mu àgg ci yonent saa salaam amul kenn ku ko àgg foofa dem na bay wax ne rasulullahi day su ma ko gisoon muy dox ba yëkkati tànkam nar koo joggi ci ak dëkk wala mu nar koo joggi ci fettug jiit sama lax laa ko cee lal mu jaar ci lax ba ca si jàll def naa kenn ko àgg foofu ci bëgg amut xaddi wiqaayatun li rijilil mujtaba min shawkatin wa ma yudahil aqraba kon da yoon kon fi mu àgg ci bëgg kenn àggu fa waaye bëgg googi nag mu firndeele ko ci jël léppam jébbal ko ko jébbal ko yàlla jaari ko ci moom lahu dahra niyaati wa xidmati wa ruuxi wa jusmaani wa kulli bila sukli diru jamono sama lépp laa ko jébbal sama yéene sama xamxam sama liggéey sama yàpp yaram ci gàttal sama lépp laa ko jégal lépp jébal ci lu ma ci seete dara laka kalkali laka niyati laka jussati laka gurbati wa mawatini wal manzilu dem ba ko wax ne billahi alladi laa huwa alkarimul alim xayaati wa mamaati wa harakaati wa sakanaati ma sayidina muhammadin sallallahu alayhi wa sallam ci yàlla mi nga xam kenn du buur may moom sama sama sama dundu sama faddu sama yëngu ak sama dal lépp jébbal naa ko yonente bi sallallahu alayhi wa di ko ko liggéeyale liggéey bi nag kon Euh, jébbal gi nga ko jébbal léppam gannaaw bëgg ga da ko firndeele nag ci di ko liggéeyal guddeeg bëccëg liggéey boobu yi nag may su ko seetle ñaari xaaj mooy lim ko liggéeyal ci jëmmam di Sëñ Tuubaa xidma ci jëmm yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ak nim xidma ci diine yonente bi saasam ci jëmm ji ak diine ji bu dee jëmm ji mooy lim doon bind jëme ci moom di ko tagg ak di julli ci moom ba tax na atam mu nekk da ko séddli woon ñaari xaaj juróom benn weer yu njëkk yi tamay li dalee muharram ba ci jumaada thaniya lim ciy bind lépp mu ciy tagg yonent bi sallallahu alayhi wa bu dee juróom benn weer yi ci des di xaaj bu mujj bi lim ci bind lépp mu ciy julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam loolu wax ne salaatu sitta bi matxi sitta taatihi batta maha tisaayi ci loolu lay wax it ne madaxtu xayral xalqi min muharrami ila intisaafi al aami daa takarrumi damay tagg yonent bi saa sañ ci li dali muharram ba weer wi xaaj ba at mi xaaj mi ba ci jumaa dastaniya li dali rajab ba ci zul xijja nag may julli ci moom lahum tidaahi li jumaada thaniya minhu wa xaadili xutoofan daaniya lahu salaati wa salaami min li xadmi dil xijjati ni'mal muntajab la ko séddli woon liggéey bi nga xam ne juróom benn weer yi lam ci bind lépp tagg lay doon juróom benn weer yee lam ci bind lépp julli ci moom lay doon nga xam diiru géej gi ab liggéeyam noonu la ko séddalee liggéey ci lu ci kenn musta liggéey ci dayaw muy ci tolluwaay ci tedd nga ci rafet ci nangu ku ko suñu borom nangu loolu nag mu waxal ko boppam wax ne li ma ko liggéeyal ku dul man liggéeyaloo ko ko farraxtuhu bi xidamin laa thaniya laha min alxidami laysat faniya bégloo naa Moustapha sallallahu alayhi wa sallam ci liggéey yu rëy yu ma ko defal yoo xam ne ku dul yoo xam ne euh, amutum ñaareel mooy kenn tollantiwu ko te njariñam njariñam itam du jeex ba mukk waxaat feneen ne képp ko dem ba jortu ne liggéeyal nga ko lu toll ni li ma ko liggéeyal mbaa lu ni mel sa njort nax na la ne sa njort lool sànni naa ko ci àll bi di la ku dul man lottu nga ca man zanna annahu yakunu abada yurdihi billati ka xidmati bada loolu lay wax ne man zanna annahu yakunu abada yurdihi billati ka xidmati bada nafaytu zannahu bi anni al xadim bi ma wana an mislihi kullu xadim loolu leer naññ la kon ni mu ko liggéeyal lu ko kenn mësa liggéeyal nag moo tax su moom fayee ko ca loo xam ne rëy na rëy goo xam ne xeeb na ca cant boobu ba tax mu ne na ma ñépp sant la yàlla woote liggéey cant ci bisam bii nuy dëgmal wax ne gannaaw ba ko suñu doon tegee lam ko teg ci ay nattu yu tiis mu muñ ko muñ gu sell muñ ko rafet neen gannaaw muñ googa nag léegi dama koy dama koy dama koy sant sant nag fii ci sama suuf si ma dëkk ngi Sénégal xaawaltu shukrallahi fii turaabi ba'da jamili sabri fi bi wax damay saxal sant yàlla ba kër may tàbbi aljanna ci lu muy ànd ak genn waru wala genn noonu udiimu shukra llahi lil jinaani bila taxarrurin wala udwaani nee na sama tumuraanki gi day doon wonaa ca lool ci sama yaxantu moo doon yaxantu ci sama digg sama borom waaye itam kon kon nag dinaa sant cant gu rafet fii ci sama suuf rabixtu fi tijaarati fi gurbati wa ashkuru al jamila inda turbati mu ne nag safar mi nga xam nag ci laa doon liggéey ci laa tàmbali liggéey ba nu liggéey sama borom safar de bégal na ma mbég moo xam ne dootu ànd ko ragal ba faw daraje Muntaxa mi nga xam nag mooy aji des yi nga xam ne jégal na moom mbalem lu wees woon basharani bi xayri taxwifin safar bil muntaqa baaxin lima mada xafar ah, murit yi yéen ko sant at mu nekk at mu nekk ak weer wu nekk te alxuraan rekk sama sukkandikuwaay nawaytu shukrahu alayka kulla aam wa kulla shahri wal kitaabu li aam mooy nag fas naa ko yéene sant fii fi Daaru Salaam ak fii fi Tuuba ba koy wax booba indee guñ màggal gi Tuuba ak Daaru Salaam waaye neen fas naa ko yéene sant fii ci Daaru Salaam ak fii ci sama Tuubaa gii ci sama yaram ak samay xalima nawaytu shukrahu la daa daari salaam wa inda tuubaaya bi jismin wa qilaam fas ko yéene sant itam ci jëfi farata ak jëfi sunna ci ñaari barab yooyu ak fa daarul minan nawaytu shukrahu bi fardin wa sunan indahuma wa inda daaratil minan fasaako yéene sant ci lépp lu yàlla daganal rek lépp lu yàlla kon lépp lu dagan ci màggal gi la bokk fasaako yéene sant ci lépp lu dagan te yàlla tànnal ma ko te defal ma ca tono nawaytu shukruhu bi kulli ma abaax waxtaarahu liya wa qaada li rabaax cant googu ma sant yàlla nag cant la ko fees dama ko yéene sant cant ko fees dell kaw suuf cant ko fees dell kaw asamaan di ngeen jëg cant goo xam ne dana dana ko gërëm la moom yàlla chakarani eh, nawetu shukrallaahi mil al ardi ma sama xayra shakurin yurdi cant gi cant gu fees suuf moom leer na nu yi ndax bis bii di bisu màggal Tuubaa fi ne fépp lañ koy màggal ci àdduna ca Chine ca Amérique fa gën a sooy foo dem ci àdduna ña ngi fay màggal màggal Tuubaa kon fees cant la ko fees dell kaw suuf te amuñu sikki ne ñun ñu dëkk suuf ni ñu koy màggal ci soon noonu la ko asamaan malaaka yi màggale ci kaw asamaan loolu loolu sikkunu ko kon mooy cant ko fees dell asamaan mu ne sant naa yàlla waaye yàlla sant na ma sant nag waaye moom it sant na ma cant goo xam ne màndargaal na ko ca mboolem tànneef ya ba ko yàlla defal benn cër benn tomb xam nga ne xam nga ne sun doom sant na ma chakarani sul aradina wassama shukran la daa axyaarihi xadru sima tey sama lépp la yàlla sant sama lépp yàlla sant na ko chakara kullillahu shukran yarqa lil arsi wal kursi ni'mal marqa yàlla sant na sama lépp cant goo xam ne yéeg na ca yéeg na ca kaw arash ak ca kaw kursi yi yow sunu borom gërëm naa la waaye yow it gërëm nga ma tey bégal nga ma defal nga ma teraanga defal nga may xéewal raditu anka wa radita anni bashartani bi wa manni la ma doon wuti sama borom nag la dale ca assassine muy at mi nga xam ne ci la dem ci géej gi ci la tàmbali liggéey bi ca Mbàkke Kajoor lay bëgg a wax la dale Mbàkke Kajoor yu ngi door sos yoon wi la fa dale ba ci jam sasi muy atum junne ñetti téeméer ak ñeent fukk ñett an ñetti at la ci tegaat ñibbi si tubaa ñu wax suñu borom ne ko li ma bëggoon li ma bëggoon lépp am naa ko ci diggante boobu ci yàlla ak bi la ma yéene woon lépp def naa ko ay la ma bëggoon lépp am naa ko ci boobu lijamsashin min asashin hawaytu fillahi war ma nawaytu moo tax nag jenn lor dootuma dëgmal ci safar ndax safar bi muy liggéeyal boroomam wax nañ ne fukki fan juróom-ñett ci safar saa bu dikkee natt yo num tolloon dañ koy fultegaat ko ko su doon fukk la woon daaw ren téeméer lay doon su doon téeméer la woon daaw ren junni lay doon soo leen junni lay woon daaw ren fukki junni noonu lay noonu lay yokkoo ba ci ba liggéey bi mat mu ne ba nga xam ne nag dem na ci at mu mujj nga xam ne ci la liggéey bi mat nag bi safa tero ba muy waaj ngir ngir ngir bëgg a dékku natt yi da su ma xamal ne ko nag natt bi jeex na léegi cant gee ci des muy xéewal yi ak cant gi mu ne kon nag yan la dootuma dootuma jublu benn coono dootuma jublu te yàlla wamatal na ma la ma tànn lépp ci lu may ànd benn coono lam yanxuni fiihi adan aw fi safar wan xaadali maxtaarali bila safar moo tax na kon cant goog yi mu woote ko wax ne képp koo xam ne sama mbég sa mbég la su bisu akseta nag ma ci sant yàlla waxoon na sëñ mu laay bu su ko mu laay day àjjana sax amul jant yu fenk kaso mooy amul ay ay ay ay ay weer waaye teewul waxtu wi ñu daan wi ñu daan màggal Tuubaa saa bu agsee muy waxtu fukki na ci safar saa bu agseetee suñu waan daana soppi xéwale àjjana ba ñëpp xam ne am na bu ñu lay loxew ñu ne màggal mag bis tey mooy bisu màggal Tuubaa kan kon day feeñ ba ca àjjana loolu sëñ wax na ko sëñ Mulaay Buso di njaareem ne ko bis bi la ma doon wut ci sama borom lépp ci laa ko am waaye yéen li ngeen di bu ci seen borom lépp ci ngeen koy amee mooy bi nga ko njëkkee màggal ndax bisu talaata la woon niren bisu talaata la ko Sëñ Tuubaa njëkk a màggal ci njaareem ci am sachin mi atum junni ak ñetti téeméer ñeent fukk ak benn euh, te euh, ca sëñ sëñ mu la jaar it ndax sëñ sëñ Abdoulaye mas na faa yebal télévision RTS ci 86 su ma juumal atum 86 ca sëñ mu laay mu dem netteel na yëf ya tàmbalee woon nga xam ne sëñ dafa am sëñ Modou Bousso mi taw sëñ Mbàkke Bousso daa am addi yu mu yónnee woon ci njaareem gàttug bay wu jigéen ànd ca sëñ mulaay sëñ sëñ sëñ Modou jox ndigal ndaw li ne ko soo dem na nga jaar ci sëñ mulaay boo sëñ mulaay mu ngi njaariñ ci sëñ Tuubaa sëñ mulaay naan bi ma ko yégalee sëriñ bi xamal ko ñu ab gàttu gàttu bay bu jigéen ma ngi ma ngi ca la ne ko ndax mën nañ ma ko soppil am xaaf mu ne ko waaw Mbàkke mu noonu nañ ma defal noonu ñu dem ci céréer ga fexe bañ soppil leen ko bañ wecc leen ko am xaaf mu indi ko comme koy ko yélee mu ne ko téyel ma ko tolloog fukki fan ak juróom-ñett ci safar la ko woo mu ñëw mu ne ko gàtt boobee naga dem lawetal ko ta yéen a ca mel ne man maa ko tiim di ko lawetal soo nga jox ko sa ñaari bàjjen yi noonu la ko waxee li am matayka xannat eh, eh, eh, soxna na ko aminatu wa xannatu mi soxna aminatu busum yi waaju sëñ Abdu Xaadir ak soxna Anta Bale te nga dikk ma wax la bon defee noonu ba ba disi ba disoon la ko la ko door wax nag bis bii day mooy bis bi nga xam ne li ma bëggoon ci sama borom lépp ci laa ko amee yéen li ngeen bëgg ci seen borom lépp ci ngeen koy amee ba tax ma bëgg na su agsee tey ñëpp maa sant la ma ci yàlla daal di woolu sëñ sëñ sëñ Balla Faali Jang jox ko ndigal mu jot li ko taalibe yépp ne bis bu su agsee tey na ba ci ñëpp sant yàlla li dalee ci ginaar ba ci gileem kon màggal gi bernde la ndax Sëñ Tuubaa ba nga koy ba nga koy bis bu nga màggal bernde rek la def bernde kon yi ca ànd yépp nag day lu baax rek lu mu ta ñàkk ñu boole ko ci waaye jëmmi màggal ci bopp mooy bernde moom la ci defen digle digle woon ko ba ko mag ñi def nag te xamuñ ni koy tuddee ñu tuddee ko waat waaye sëñ bi bañ ge daa tax mu ne déedéet tëbëski sunna la su sun boon joxoon Seydina Ibrahima ci la soso mu sunnaal ko ci yonent bi saasam kon duñ duñ buñ ko tuddewoon nañ ko tuddee ak màggal moo tax sëñ Saliou daa wax ne baatu màggal ci Sëñ Tuubaa lañ ko njëkk a déggee kon moo ko tuddee ak màggal moo waxoon ne tabaski sunna la su dëgër su am solo soo xam ne képp koo xam ne am nga lu man am nga ñaari gàtt ci at mi gàtt bi na nga ko rendi ci sunna Ibrahima si muy tabaski bii des nga dencal ma ko ba ci sama bis ba nga defal ma ko ci ndax néew moom moo gën tabaski de waaye yéen nag moo gën ci yéen tabaski noonu la ko waxee néew moom moo gën waaye yéen de moo gën ci yéen kon nag kon bis la kon bu màgg a màgg a màgg bu tedd bu rëy bu làmboo ngeneel yu baree bari loo xam ne lépp lu nit ki sàkku ci ci ci sàkku ci xéewal lu mën a doon mën na ko caame ci kaw bu rafet bu rafetalee yéenam ak pas-pasam sëñ Muntaxa nag la mu waxoon ci yëgle ba ne banañ ko sant yàlla nañ ko njëkk a sant moom ba noppi nañ ko njëkk sant ñoom ndax nun lun am ci xéwal la sëñ Tuubaa la am sëñ Tuubaa la nu nu ak nu nu mel sëñ Tuubaa ko war nañ ko sant nun suñ ko santee ba noppi nag santale ko yàlla def ndigal lim nu sant mooy santale ko boroomam ci xéwal yooya te buñ ko sante yàlla ci biir cantam lañ koy tàbbal ndax man mu beru fee di sant yàlla rek man suñu ba mën na koo nangu mën naa bañ a rafet waaye nag booy def eh, màggal Tuba Sëñ Tuba ngay santal te Sëñ Tuba lépp suñu ba nangu na ko kon sax cant dañ koy naan ndax dañ koy dugal ci biiru cantam kon dañ ko dundal baax a baax ci jàng alxuraan ci jàng xasaayid yi rawatina yooyu tagg yeeg madax yi ak yu salawaat yi ak itam jàng xasaayid eh, mën a farlu ca bu baax a baax baax a baax waaye dundal ko bu baax a baax na ci bernde ñu ko xam li daal ci ganaar ba ci giléem loo ca waaye am rek na ko ca def ginaar mëtt xeeb giléem mëtt yéem te newoon na fu ñaar dende kii di ko fonk kee ko bañ a fonk kii ko du dañ mukk di gis lu lu mu jiitoo ka ko du fonk ba faaw yàlla na suñu borom dimbale bal dafa taw fi fekk loonu ko jàmm te weesu ko te yàlla jaar fii itam jeexal mas mi takk ci àdduna suñ mu taxaa yàgg fi lool yàddu gu ànd ko wér ba lim naa la sint waaye yéen ko ko liggéey lépp mu liggéey ko ba lépp sotti tam jiite ko lu yàgg yàgg ak Seexul Xadim asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu salaatu allazi fi kulli sayrin wa fi safar hamaani hala maahin maal absa wa safar